simile Sénégal na kay eh, am na xaalis de masàllaa Le Soleil yéene kay ne financement xam ne moom moo jógee ca bitim réew day waaw ma ne la président Macky Sall day def na fi nag lu fi kenn mës a def eh, waaw performance record ma ne juróom ñaari junni laa lay ni ak ñaar fukk ci ay milliards sept mille vingt milliards francs CFA moom la fi dugal nag maanaam kon ci juróomi at yi la loolee ne day mandargaal ne bailleur de fonds yi day a eh. na nañu Sénégal te jox nañ ko bopp de la tax nag mars yi ñuy woote dana ne yéen a kaay gi ne te nag jàppal ne kon weeru mars 2000 ba avril 2012 éma bi Abdoulaye Wade kon ba ba muy jóge fii waaw ci fukki at ak ñaar ah. ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk 3790 milliards la Abdoulaye Wade kon mobilisé woon waaw président Macky Sall nag ci juróomi at ah. da koo doublé 7020 milliards réew mi ngay xaalis sa jamono jooju ñu naan réew mi ngay xaalis waaw président Macky Sall day ak nguuram gi ah. lañu ñu yor ci ay bor day ak bañ a fay lu yaas bari na l'observateur de daa mel ni day kor ma dem fay waaw daa yëgoole lan maanaam maire gi nga xam ne nag moom la kuréel gi nga xam ne moo njaboote école privée nekk Sénégal maire ba war a def de guerre ba moo ko jiite ak Rasoul Lay Ali Baba Koumana ma ne le président de la République ah. ni ki démb day daal dinay sàkku na kon ci suñu takk der yi force de défense yi waaw ak sécurité nee na lu mu laaj ci ay jumtukaay di ay moyens nañ ko ca def ngir dëkk dëkkal neutraliser ñi nga xam ne nag maanaam ñoo yor ngànnaay te nekk ci biir réew mi yëpp nag la ñu wax territoire national tey Casamance Casamance ko la tey moo yéene kay nee na président Macky Sall day mujj naa jëlal boppam lépp nag en moo ko téye waaw waaw daal dinay sàkk ci gouvernement bi mu daal di dakkal nag autorisation yi nga xam ne kon dañu ko joxe ngir nag ñuy gorgoon garab yi nga xam ne ñoo ne ca Casamance Casamance koo ga sur quotidien nee faat yi nga xam ne nag maanaam kon faat nañ ko nit yi ca Boffa waaw ak wàllum kaaraange gi ci biir réew day président Macky Sall ñeenti point ah, dafa fa seenee ak ñi nga xam ne kon tribune na ko ca ba faa googe waaw waaye réew mi tamit ni jax-jaxee tay day di front social bi grève yi bari waaw président Macky Sall ma ngay mar fii di ëf ca fa ca des en tout cas présidentiel baa ngi ñëw de box bi li ne wàllu koom-koom gi day boo sàgganee mën naa amu gàllankoor ak présidentiel bi maa la ko wax waa FMI ci boppam di Fonds international day am ah, na ah, ñaar ndax bu dee Bamba Fall waaw nee na Khalifa Sall bu génnulee ñoom Idrissa Seck mën naa nekk seen candidat Barthélémy Dias ne du ca dal moom Barthélémy Dias ci laas ne ñin danoo amul plan B amuñu plan X Khalifa Sall suñu candidat point Barthélémy Dias ko atte te dana génn te dana doon candidat la ilaha illallah doomu Sambol Dias ca parce que Barth nee na gis nga nguuru Macky gi waaw lu tolloog ñaari millions ak genn wàlla ñu ko teg deux millions six ci ay carte électeur la ñu faxati téye ko eh a yokk 60 pour cent fan la koy jëlee moom mi fi taxaw barki démb njaay ne ci sàcc yi nga xam kon moom la waa këram sàcc élection yi Barthélémy Dias waxtu samay kaddu de Moussa Fall Benno Bokk Yaakaar bu yoof ci tribune yéene moo nekkoon réew mi waaw nee na président Macky Sall de bu jëlee yaakaaram teg ko ci waa PS ak AFP <laughs> bi lay yàq na ko parce que ñaari parti yoo yee ni ñu mel léegi bokkul ak 2012 ba loolay dëgg AFP PS PS day ci Vox Populi nee na day mën na ñoo lu ne waxal ñu lu ne ba mu des ñàkk fayda non loolu moom bokk ci Cheikh Bamba Dieye day ci l'Observateur la mu woote daal mooy opposition bi bi eh. am benn candidat est opposition bi gëm nañ seen bopp bugaan ngay dañu ne gëm sa bopp day moo la ciy génne njiital dee mais jàngo xam ne nag maanaam ko ci tribune yéene kaay ca jee ja nga xam ni kon foofee la ñëwoon démb seet si daaroog méngu bugaan ngay dañu ne nguur waay waay mënul lépp di xaar état mu gëm sa bopp rek yéen waa gee nag li ma leen di xamal man bugaan ngay dañu mooy ngeen booloo doon benn mooy suxali seen seen mënatuñoo daan kon nag li ma leen di xamal man Bougane Gueye Dany mooy yow mii amee muy keneen ak keneen fii ba keroog Aliou Sall di fi jóge ndax moom nag la fi yàlla teg wa illaa ba keroog muy amaat beneen mandat ànd leen ak moom liggéey géejawaay moo waa Bougane mi <laughs> tey lii dem naa ca football ba le quotidien yi nekkaay ne musiba mbaa ba kumba bi amoon kon ca démb jóg day ba waa Mbour dee ca waaw tribunal arbitral kon bu FIFA bee daan yee ñu laloon ca kaw iso day laal li na ko waa FIFA nee nañu iso nañ leen delloowaat ci Ligue 1 bi l'observateur ne fédération bi ni ñu leen weedee waa xam ne moom lañ ko daanoon day nee nañ léegi na waa iso fay eh nee na li ñu leen wax nañ ko appliqué la loi kese Sayer Seck waaw nee na Ligue Pro bi daar daar en urgence ngir xool nag lu ñuy def <laughs> alaaji coowal iso lii no comment amul commentaire moo tax mën a la alaaji tëjee ci mobilier de